le war na wuy ji euh, cour suprême euh, ñu gis na nag bu Mame Mbaye Niang moom boobu bu mu fekkee nii doon nañ tiit ci bële euh, coowal contumace beeg moom beneen mbir la boo xam ne bu fa jëlee condamnation rek amaana bu moytuwul moom bokk moom fa la wax ji di jaaree daanu moom. Mm-hmm. noo gisee fi mbir mi génnaatee ak jamono jiñ ko wóolu. loolu lañ naan taay taal bu taw a tàgg fu ne nga koy xambee mm-hmm. <laughs> mais ils sont dans le ils sont dans mm-hmm. ñii ñii ñii ñii daal jom jom daal amuñu ko. c'est c'est c'est dama sonn ci affaire Ousmane Sonko wallahi damay dama sonn ci affaire Ousmane Sonko da ngay doo xam lan ngay wax sax léegi lan ngay wax lan ngay wax lan lan <laughs> non Moustapha xaw ma Ousmane Sonko dafa dañu Sénégalais ñoo ci sonn. ah bu ñu paree ci lii ñu ngi ci lii bu ñu paree ci waa ji def na nii. sàcc na non du nooy. non du nooy sàcc na portable non buñ fii fii moom jox jox nañ ko dëgg moom non xaaral non foog ñu def a ngi koy xalaat non foog ñu dig ci nangam nangam non dem nañ ba kii non est dañuy def recours non mënuñoo def recours nag non gàcc gi day rëy nag moom gàcc gi moom recours moom day doy waar moom non lu ñu def nañ tàngal ceeb non Mame Mbaye nangam kañ na indi ko teg ça dañuy sonn ci ma leen war a jéggal <laughs> naa leen ci élection yi je te jure daa war a déclaration ñu noppaloo ko le 30 millions ne leen naa leen ci élection yi ndax coono ngeen sonn ci ñi xam naa ne moom tamit sonn waaye ñu ngi ko jàkkoo tamit sonn nañ non ñii ñoo sonn moom ma ngay lekk ma ngay naan di entraîner ñii ngi mer ba futt guuxi seeni lex lekkutuñu naantuñu nelawatuñu hmm. talantuñu lekk talantuñu naan ndax lan ndax ne waa ji rek du bokk Moustapha sénégalais yi gën a sonn ñi journaliste ñoo gën a sonn mhm. bu ñu sañ wax ci mbay mi wax ci ndapp gi wax ci sàmm gi soo Sonko guddi Ousmane Sonko bëccëg Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko laa dafa sàcc portable dafa woyoole dafa lii dafa laa ba kañ hmm? dañ ils sont dans leur propre piège xam nga tax ma ne ils sont tombés dañ fi bàyyi dossier Mame Mbaye Niang jël l'affaire compte Maxila loolu yëpp se résume ci ñaari article mhm. article L vingt neuf article L trente l' article L vingt neuf moo concerné le dossier du l' affaire compte Max buñ ko ci daanoon yaa ngi koy souligner léegi mooy lu sénégalais war a xam. Mhm. buñ ci daanoon Ousmane Sonko sur l' affaire compte Max la Ousmane Sonko maanaam dootul mën a nekk njiitu réewu Sénégal ci suñu sàttu ndeyu réew mi constitution bi ñu tënk. Ousmane Sonko dootul nekk candidat Sénégal. bu ñu toppoon ci dossier compte max bi ñu nekk daan ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko daan leen ci daanaat leen ci duma leen ci ñu xam ne pexe jeex na dossier Mame Mbaye bi li ko tënk mooy làkk l'article trente article trente boobu moom bu ñu ci daanee Ousmane Sonko bu toogaatee juróomi at mën naa concourir aux élections présidentielles. Mm. nekk candidat comprendre nga. Mm. léegi nag ñoom amatuñu pexe. <laughs> bii mooy seen sànni tàccu affaire Mame Mbaye Niang bi. mës ngaa moo leen dese. mës ngaa gis ci histoire politiku àdduna gëstu naa de wax dëgg yàlla. Mhm. gëstu naa ci de dugg naa Google laajte naa fu ne dugg naa fa. histoire politique àdduna président bu ñu daan un candidat bu ñu daan ndax diffamation ne bokkul. mais su fekkee si texte la nag. non wax ma texte parce que ko ah. non je ne parle pas de texte loolu ay ay lay laaj suba nag. pour kii ñëw mu dindi yooyu parce que ay textes yu fi nekk la. ñu bàyyi caaxaan. non ay textes yu fi nekk la non defal nank defal nank defal nank Moustapha. Moustapha pain boulette ngay ndékkee nga ne ndékkuma pain pain boulette pain omelette laay ndékkee ñu ne non Moustapha Mass dafa diffamé Moustapha parce que dana ko pain boulette ngay ndékkee fekk Moustapha pain omelette lay ndékkee kon Mass ne sera pas <laughs> di bon ah, affaire gis nga candidat boo bëgg a teg ci diggante pain bu lait ak pp même chose la rek <laughs> non gis nga maanaam Moustapha diffamation ñu daan nit ki ne ko yaa tooñ non déglu mais texte yi mais texte yi xam nga pour man foofu comprendre naa la de mais dama yaakaar ne loolu liggéey suba la kii ñëw mu xool ba yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir suñu texte yi ñu xool nu ñu ko fiy jëlee ok waaw Okay. parce que parce que article 260 boobu ñuy soulever euh, moo ne diffamation bu jëmale ci koo xamante ne ministre la walla muy autorité loolu ça pose problème. Sénégal Sénégal moo tax ñuy wax inconstitutionnalité bi. Sénégal bu ñu amee jom tuuti nañu wax waxu texte fii fii sañ nañ wax wax ñi waxu texte. lu tax lu tax duñu wax waxi texte. Mhm, mais lii ñuy wax nii jóge ci saabu si fay jóge si ju juge coon euh, du ay texte ñu appliqué ñu war ko appliqué article L 47 bi la décision n'est pas suspensive ñu war ko appliqué appliqué wuñ ko du ay texte. quand ça quand ça ça les arrange on parle on peut parler de texte. 307 bu. ça les arrange pas on parle pas de texte. contumace bi contumace bi loolu du ay texte waay léegi bu leen neexee kaa ñu waxtaan ci texte ça les arrange bu fekkee dëgg la bu leen arrangé wul. non je mooy xam nga texte yi am na ci yoo xamante ne mi ngi ci biir te dafa antidémocratique am na ci yoo xam ne ñu ngi ci biir te waroon war na des na koy mën a xoolaat. Mame Mbaye Niang biñ ko biñ njëkk daane Ousmane Sonko ñaata weer lañ ko daan. ñaari weer ñaari weer. Hmm? Hmm? mënu woon yàqal Ousmane ko dara. da hmm. tax mu defaat appel ñu baagale ko gaaw. ñëwaat Ousmane Sonko daan ko 6 mois pour lan. foofu ma doole la sax. Ah. procureur moo def appel. Ah, jeex na. maam dugal na appel te bu dugalee appel moom si action civile bi lay lay kii mooy ci ci xaalis bi ñu doon laaj. très bien procureur bu duggee nag si action publique bi lay lay lay dem. moo tax ñu yokk peine bi wax nga lépp. moo tax ñu yokk yokk peine bi ndax lan ndax ni par force waa ji du bokk. Mm-hmm. nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi caaxaan l'affaire Mame Mbaye Niang la mais ay caaxaan la lu ci bëri ah, Amadou Ba waxoon na ci. Euh, Ibrahim Seck société civile livre la ci bind. Mm-hmm. Hmm? yow dan danga nga diffamé mais nañ la condamné daan la nga fay parce que li nga wax ak li ma li li nekk bokkul ñu daan la waaye candidature askan wi ñëpp diw la ñu bëgg Moustapha mbay mii la ñu bëgg mooy suñu candidat ñu ne Moustapha mbay mii dañ ko daan parce que li mu wax ne kee moo tax du bokk du doon candidat texte yu koy wax texte yooyu wax nañ ko xolaat mhm. parce que aussi yàpp sénégalais yi mënta weesu tey ji ñu jël benn affaire rek te et puis dafa léger trop yaa ngi ko yow c'est trop léger c'est trop trop léger et terre à terre mhm. vraiment mënuñu wax tey ji yaa ngi koy wax sànq ah procureur ci boppam moom moom moom. lu ci yoonam ci ku ne ku ne dañ maa sosal. waaw ku ne dañ maa sosal lu ci yoonu procureur yow mbir maa ngi ci yoon. non parce que boobu interjeté woon appel du du baax ci ñoom. ci ñoom ñan ñoom ñoom ñoom na ñoom bi ñëw ñoom mooy ñan <laughs> déet. non procureur bu defuloon appel pend bu ñu delluwaat rek kenn du ko laal. te ñoom ñoom balaa dee dañoo ñaa ci ci ci action civile bi lay. mën a lay mën ñëwal <laughs> ñoom ñooy ñan <laughs> ah mooy ñu bëgg Ousmane Sonko bokk. Mm-hmm. parce que procureur dafay exécuter aussi l' action de l' mhm. procureur boobu ñu wax tey mooy mu dugg ci dossier bi bay wax. Hmm? nga gis aussi Mame Mbaye bu doon moom rek tey jii deux mois yooyu ñu daan Ousmane Sonko ñu ne daan nañ ko deux mois ak euh, nangam lu moo ndàmpaay lu mu war a fay mais doy na sëkk bu dee diffamation la ah. procureur inter sosal nit ki ñoom di nga ko fay deux cent millions waaw deux kon de moom naa xool ko saay ku ma ku ma sosal ma ma ma kii ko. ah sosal nit ñu la dangay ngay fay deux cent millions ndax da nga koo sosal deux cent millions ah mais yam na yoo xamante ne aussi politique nee naa la affaire gentleman la mhm. mais ñii ils utilisent tous les moyens ils utilisent tous les moyens laa wax du bord pour éliminer Ousmane Sonko ko du bokk ci élection yi ñu liggéey sax ñoom ñi ñu liggéey mhm. seen mbir yëpp mooy waa ji da a jaaxal te gis nga donc dañoo am surprise nag de. Hmm. dañoo am bettaange si seen si seen seen affaire parce que ñoom yaakaaruñu ne ne dossier Ousmane Sonko na ñëw jusqu'à deux mois des élections waa ji il est toujours éligible. Hmm. et candidat jusqu'à l'heure où je vous parle Ousmane Sonko est candidat dara mënu ko tey mu nekk candidat léegi nag nañu xool le kat lan mooy tukkee ci dossier Mame Mbaye Niang bi. Hmm. fan lañ ko yóbbu. Cour suprême Cour suprême. cour suprême sax moom sonn nañ dañoo sonn. Mhm. je te jure dañ maanaam réew mi dañ leen a poñe ci waaju du bokk waaju du bokk waaju du bokk bu ñu bitim réew nga gis sénateur yi wax ñeen ñi di wax ça veut dire que aussi vraiment euh, man mënuma gëm ne ci état bu démocrate état buñ ne Sénégal liberté moo fa am respect des droits de l'homme moo fa am ñu jàpp un Mhm. de depuis deux ans hmm? procès sur procès hmm, lu nañu jiñ ko ko yàq deram lu nañu jéem ko ci moom pour rek xam ne c'est le choix du peuple sénégalais Ousmane Sonko c'est le choix du peuple sénégalais. Mhm. mas merci. nga baal ma. Mhm. ma daaneel foofu bu ñu toogee di wax tout le temps. dañu dëkkal fenn mais lii dëkk mooy ñoom seen bopp ñoo la gën a xam ne waa ji bokkee da leen di gañe xam nañ ko bu baax boo leen mais lan moo lan mooy sa problème ak waa ji ñu ne ma du bokk. du bokk du bokk. booboo gën a gaaw du bokk. nga leen foo leen teg de bokk. ñu warta bokk ñu warta bokk. lu tax du bokk nga ne parce que warul bokk. Mm-hmm. du bokk. mais bu ñu demee ba ci légèreté yooyu ñu dem ba agsi foofu. problème am na problème am na bu ñu demee ba tey jii ragal un homme politique. Hmm, xam ne kii askan wi de gis nga politique du Séné politique bu Sénégal tey ñuy dem élection 2024 des élections sans monsieur Ousmane Sonko c'est pas des élections. Mhm. dina am lu des. non non non hmm. yow mbër mi fi nekk te kenn daanu ko te kenn ñemewu ko hmm? mooy mbër mi ñi si des ñëpp hmm? yaawu jaal la ñu kiyal na ma yaawu jaal baal nañu tollool. Hmm, dama opposition baal taw ñu ma ñëpp. Hmm. mais mbër mi fii mbër mi fii mbër jamono ji ci wàllu nga politique bi mooy Ousmane Sonko. ñeneen ñi sax bu ñu bëggee jàmb dañuy làqu ci ginnaawam comprendre nga te gis nga ni mu ni mu ñàkk arrangé nguur gi bokkam noonu la noonu la ñàkk arrangé. ñu arrangé opposition bi ci opposition bi de. Hmm. dañuy layam layami nii rek di wax di ji di baax baaxlu mais ñoom ñoo gën a bañ Ousmane Sonko bokk ci élection yi ñenn ñi parce que arrangé wu merci Mass. waaw xanaa ma tëjee leen rek. Mhm. <coughs> sur euh, l'affaire ICS. Mhm. dafa nekk combat boo xamante ne man dama ko